fati lu defkatu ñaawtee fi defati du ñu ne lu defkati ñaawtee fi def mais lu defkatu ñaawtee fi defati mooy nit yu bon yi lu ñu defati dem bay jël ngànnaay di ko jëmale ci jigéen di ko gaañ di ko toroxal jigéen boo xam ne lenn rek moo tax ñu een ko lenn rek moo tax ñu bañ ko mooy bokk ak ñoom gis-gis loolu kese la du leneen boo xoolee tey commentaire yi ñoom ñi nga xam ne ay nit yu bon lañu ñoom ñi nga xam ne si njabootu rebelle lañu bokk ñoom ñi nga xam ne ay nit yu yées lañu seen commentaire yëpp danoo kontaan la fait que ñu def jëf ju ñaaw ji di soxna soosu Maimouna Ndour Faye euh, lépp nag am na lu ko waral te ba yeboo it yeneen sénégalais tiit man de tiituma wax dëgg fa yàlla parce que si banlieue laa juddoo ci laa yaroo ci laa màggee te it avertir naa fi depuis keroog soof qui foofu leen toll sauver sa bopp sauver sa njaboot sauver sa dëkkandoo nit ku ne wutal say matuwaay réew mi moo toll foofu nit ku ne wutal say matuwaay dara bañ laa bett man de fagaru naa yàgg na moo tax it maa ngi am jàmm ak salaam boobu ba léegi parce que nit bu yore paaka moom jëm si yow wala yore jaasa jëm si yow yow nga yore fetel yaakaar naa ni looloo ëpp doole bi ñu gisee ñu nekk dix-huit millions d'habitants ñu nekk ci politique ñii di politique ñu tuuti lañu ci mim réew bëgg tee otage sénégalais yépp gis ngeen la xewoon ca Touba ay junni nit génn foofu yàq sabote toj gis ngeen lu xewoon ca dakaar lakk bus toj yàq Auchan ndax lan ndax politique politique boo xam ne amoo si dara ma riirandoo dong ak reewan ne police def liggéeyam gendarmerie def liggéeyam ñu jébbal procureur procureur def liggéeyam jéggal monsieur le juge jébbal ko monsieur le juge def liggéeyam mooy lan mandat dépôt xaj moom tëj rek xaj tëj rek da dagag damm caaba ba parce que xaj du changé xaj boo ko tëjul bu génnee rek day gën a mer da lay loolu moo dal a Ndour Faye ñii ñu tëjoon ne karak ñoo doon toog si prison yi di dégg a Ndour Faye naan ñii ñu jàpp ñii ñu jàpp ñu amal ko bëñ moo tax ñu génn ñëw jëf ko jëf ju ñaaw ji soriwul foofu mais lépp rek entourage président Macky Sall dañuy tooñ askan bi parce que le fait que ñu naan dañuy def ay amnistie yeeg dañuy def ay jaloog ak dañuy def ay jéggal loolu moo fi jeex ay dialogue ay jéggal loolu moo fi jeex président Macky Sall wàccoo nga ak sénégalais yi président Macky Sall wàccoo nga ak sénégalais yi. li nga naroon a defaral sénégalais yi defaral nga ko sénégalais yi sénégal gi nga fekkoon senegal gu torox senegal gu tilim senegal bu maare détaali nga ñëw ba def ko senegal alhamdulillahi rabbil alamin li la war rek jamono ji mooy comme ñi dañuy jaay dofaange di jaay reewande politiciens yi di bëgg jàppee askan wi ay golo réew mi na ko armée bi jël je suis pour na armée bi jël nguuru senegal ñu daal di doxal pour cent ans man je suis pour bu ko defee politiciens yi dem wuti leneen lu ñu def politique jeex Sénégal aha ñu continuer tabax réew mi parce que pétrole mu ngi ñëw gaz bu ngi ñëw armée bi soxlawul taraw askan bi na armée bi jël état bi jarul def ministre jarul def directeur jarul def dara na président bi nekk ab général wala lu mënti doon ñuy liggéey réew mi ku tegul si yoon ñu teg la si yoon réew mii Sénégal fi ñu toll nii nii nii nii nii nii faw nit kuy dóore daal di koy jël sinon jaman fiche bi day daal di continuer jaman tab bi day daal di continuer gis ngeen jamono ji y'a dix millions de politiciens léegi ci langue politique bi parce que xam nañu bu ñu duggee politique nga nekk ministre wala nekk directeur da ngay ñëw nga enrichir si ndoddu askan wi askan wi tax nga falu amuñu vélo yow nga am cinq huit huit askan wi tax nga falu amuñu amuñu amuñu amuñu tàngalmant yow nga am conteneeru ceeb loolu laa gis sunu réew ay nit yoo xam ne dañ doon nekk douze ans de pouvoir jékki-jékki ñoo wor te alal gu ñu am yépp ñu ko am si douze ans de pouvoir bi fu ñu jëlee alal googu bu ma déggee démb si benn émission Farba Ngom mu daal di wax wax joo xam ne daf ma yéem mu ne Clédor Sène Dame ak moom ak président toog nañu ak ñeneen xam nga ni loolu tey moo tax ndaw ñu bëri mer kan moo organiser pour ay Dame Mbodj wala ay Clédor seen ñëw toog ak président benn président euh, euh, Dame Mbodj lan la mën a apporter président Macky Sall lan président Macky Sall bañ koy fal 2012 xamul kuy Dame Mbodj te dañ ko fal président Macky Sall bañ koy fal 2019 xamul kuy dàmboj te dañ ko fal xale yi ngemb woon dévoué wu gëm président Macky Sall xale yooyu ñu ngi fi ba léegi ñooñu la président wala recevoir toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu continuer waaye du ay recevoir ay dàmbooj ay Clédor Sène ñii ñu jox leen ay hectares ñii ñu jox leen ay kër ñii ñu jox leen ay oto c'est frustrant jamono jooju ñii di xeexal président ñii di xeexal nguur ñii di leen di taxaw ñu am tàngalmante mënuñu am audience pour ñu teg leen bët sax problème la bu ngeen ñëwee permanence bu booy jëmee si yéen sax yéen a ngi wut seen garde corps ñu bëmax leen lu ñu teg suñu ay gët la du dëgg du yoon tey Sénégal gii bu commencé di yàqu ñoom dàmbooj seen loxo mu ngi ci biir Sénégal gii bu commencé di yàqu ñoom Clédor seen ñu ngi ci biir grâce à yenn ndaw yi nag toog défendre seen république moo tax Sénégal googu yàquwut ndaw ñooñu ñoom mérité woon joko njal ndaw ñooñu ñoo mérité woon jaajëf ndaw ñooñu ñoo mérité woon jërë ngeen jëf te bëriwunu ndaw ñooñu xeex ba tey république bi demul à terre militaires yi xeex gendarme yi xeex police yi xeex ba terroristes yi bëggoon terroriser sénégalais ñu ne leen normal ñooñu ñoo jaroon recevoir ñooñu ñoo jaroon jaajëf mais pas ay Clédor seen pas ay Dame loolu gàcce la loolu gàcce la parce que Dame Mbodj tojut fenn Clédor Sène tojut fenn encore une fois Dame tojul fen Clédor seen tojul fenn moo tax ndaw ñi ñu gën a xamaat luy politique fan yii yëpp ñu ngi dégg ñu naan waxtaan waxtaan waxtaan que Ousmane sonk mu ngi négocier lu ma leer nañ la lu ma leer nañ. Ousmane Yera bi ñuy wax Ousmane Yera nga xam ne yéen ngi koy gis si si si si si journaux yi man dama ko xam j'ai numéro téléphone dañuy wax téléphone barki démb ba ñu mujjee gis daf ma sax saaga di kaf Ousmane Yera daf ma saaga mu ngi ma fekk benn bërëb mu ngi gaare kat katam bu ñuul euh, euh, Toyota am benn kilifa boo xam ne maak moom ñoo taxawoon di waxtaan ci otom si la Ousmane Yera gaare ñu toog di waxtaan mu ànd ak kilifa googu dem kilifa gi ne ma xaar ma maa ngi ñëw ma toog di xaar ba mu guddi ma ñibbi le lendemain ba ma gisante kilifa gi mu ne kali démb maa ngi jégal dama guddi dañ demoon Cap Manuel mooy dañ demoon si Ousmane Sonko kilifa googu ak Ousmane Yera dem nanu tey la lan vendredi démb la jeudi li may wax ni mercredi mercredi soir mercredi soir non pas mercredi soir mardi parce que démb la jeudi mercredi la ma ne dañ demoon si Ousmane Sonko c'était le mardi mardi bi passé vers vingt et une heures Ousmane Yara ak kilifa googu dem nañu Cap Manuel di toog ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu ngi négocier te pourtant Ousmane Sonko boobu moo doon woote gatsa gatsa Ousmane Sonko boobu moo doon ne nañ def président Macky Sall Samuel Doe Ousmane Sonko boobu moo doon ne nan ndaw ñi dem palais déloger président bi Ousmane Sonko boobu moo doon naan président warul fekkee deux mille vingt quatre yéenam la doon waxee bu jàppoon président Macky Sall da koy tëral da koy rendi police gendarmerie def liggéey bu am solo ba ñu jël Ousmane Sonko ne ko karet tëj jarul négocier jarul waxtaan na tëdd penam. ay nitam yi nga xam ne dañoo bëgg pour yàq Sénégal ñu tëdd seen peine Sénégal continuer di dox amul recul négocier pour lan waxtaan pour lan libérer Ousmane Sonko pour lan te mu def ay dëli délit yoo xamante ni ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñu bëri defuñu genn wàll dëli boobu parce que am na ñoo xam ne seeni soxna moo doon bëgg am doom amuñu lu ñu jëndee ordinance ñu dem sàcc ji rek tàngalmant ñu tëj leen si am na ñoo xam ne tabaskay ñëw ñu dem wuti xar ñu sàcc leen euh, tëj leen si un an deux ans benn Ousmane Sonko taxaw ne appel à l'insurrection mooy génn leen ngeen xeex xeex googu tey moo tax sunu ay ndaw yu bëri cinquantaine de jeunes ñu génn àdduna appel à l'insurrection boobu tey moo tax ñu taal ay bus dem dikk du jeex appel à l'insurrection boobu moo tax tey ñu taal ay Auchan appel à l'insurrection boobu moo tax tey ñu yàq ay BRT perte si ay milliards appel à l'insurrection boobu moo tax tey dëkk bi tàng jër kan moo ko def Ousmane Sonko gënu fi kenn ndey gënu fi kenn baay moo def jëf ju ñaaw jooju parce que ñëpp xam nañ fu mu bokk c'est un rebelle rebelle bëggul jàmm bëggul salaam rebelle moo attan fekk la fi nga toog jël paaka rendi la daal di jéggi dem il fait partie de la famille moo tax kooku du ku ñu war a amnistie du ku ñu war a baal du ñu ku ñu war di négocier je suis contre pour la libération de Ousmane sonku yenn ministres yi yenn directeurs yi naan way c'est le dialogue hey eh, nañu yërëm askan wi perte d'abord nañu yërëm askan wi yàqule Ousmane Sonko du war du du ku war a génn kaso bi dafa war a euh, tëdd penam mu saf sàpp si moom ay kañam ñi continuer def ay tooxi doona ci réew mi koñ ci jàpp police ak gendarmerie ñu ngi daan def liggéey bu excellent mais lii léegi day damm moralu police day damm moralu gendarmerie ba ci moralu juge ba ci moralu procureur parce que politiciens yi ñooy waxtaan seen biir moo fi war a jeex noonu la fi woon demee ñu jàpp Idrissa Seck président ab Ablaye Wade mu ne sa Seck à volé de milliards chantier de Thiès ñu daal di koy ne ràpp si kaso bi gars yi dem di négocier protocole de Rebeuss fii la ñu fekk mais ku sàcc ay milliards na